noon naa leen journaliste sama kalaas gii lu mu lu ñu wax ñu gëm ko kon nag bu société bi demee ñoom la bu demul ñoom la parce que yéen rek la ñuy déglu ñun yoru ñuy rajo yoru ñuy télévision yoru ñuy journaux yoru ñu leneen kon nattu ngeen am de ci ku xam journalisme ndax loo wax tey di ko wax suba loo wax ëllëg di nga ko waxaat suba tamit kon foog ñun ñëpp ñu bàyyi xel ci ni dafa am bis boo xam ni dinañ ñu dajale benn palaas buuf bi wal kenn ku nekk ci nun loo waxoon di ko waxaat loo defoon dinañ la ko fàttali il faut ñu bàyyi ci xel il faut ñu bàyyi ci xel mais nag wax dëgg yàlla rôle bi ngeen di def ci société bi rôle immense la ndax nit day réer ngeen gindi ko nit juum ngeen jubbante ko nit jaaxle ngeen ngeen yee ko kon mission bi ngeen yor ni c'est une mission divine képp koo xam ne dangaa nekk au service de la société société bi munu laa fay yàlla moo leen mën a fay yéen sérieusement ñun mënuñu leen a fay de événement am léegi naa nga dégg ko fi mu am maatam nga dégg ko fii mu am Saalum nga dégg ko fi mais ñun nan lañ leen mën a fay yàlla moo leen mën a fayam mais ñun mënuñu leen a fay waaye nag lu ngi lu ngeen def seen bopp ngeen ko defal ndax sunu borom dafa wax ci suratu ut ni inna laaha naka man yàlla laa yu diixu duma neenal mukk ajaral muxsiniina jëfi waay rafetal te rafetal ngeen daw man jéemuma leen a dialogue de jéemumaa wax lu leen neex mais li nga xam sama bàmmeel dinaa ko layoo moom laa leen di wax te loolu gis ci ñun fay kenn mënu leen a fay kon bu leen séentu ak fay ci li ngeen di def koo wéetali koo ko dul yàlla ku nekk dina la mu wéetal koo wéetali ko ku yàlla ku ne dina la musa wéetal waaye boo wéetali koo yàlla doo wéet boo ma wéetali koo dinaa dem bala fi bu ma la wéetali koo di nga dem ba fi mais bu ma wéetali yàlla du ma wéet te bu ngeen ko bëggee bu ngeen ko bañee la mu bind du ko far te mooy continuer ba ëllëg iraadatullaahi wa masiatu namu namu namu yàlla mooy coobareem namu namu yàlla mooy coobareem kon ñuy ñuy rafetal nekkin yi ak di fàttalente tamit fa zaakir ina sikratan fahul muminina ñuy fàttalente parce que doomu aadama bu nekk yàlla boole na ko ak ñaar fàtte ak juum doomu aadama bu dul fàtte amul doomu aadama bu dul juum amul kon nañ leen di mottalente par la consertation wasalaam